le choc des guerriers ce 31 décembre mbokk yi ñu ànd ci ak Ndiaye production lu xam ngeen Diop la borom sool daanaan la moom la Ndiaye production jël daal di koy boole ak caat ngéwél mbayaar bi di xale bu mën a bëre lool ñu boole ñaari yi ñaari jàmbaar ñaari ndaanaan ci bésu le 31 décembre ci arène nationale You know, bu demee yokkal ñaar yokkal ñaar. am na am na am na quatorze. yow bu li nga def jàmbaar. xam naa ba suba ci fajal la. ah yow commencé ko. des na de yaa ngi doon sax échauffement la dalaa sew rek la. dalaa sew la ñun dañoo teel a entraînement bi ba combat commencé ñëwagul sax booy. léegi xam nga def da ngay escouade. da ngay escouade quoi. escouade mooy ah, tànk li ngay laal nga kaw bi tuuti. waaw mu yow tànk yi ngay laal mu yow. fa laay laal da ngay escouade. fa waxee laal waaw. escouade. escouade. bii moom. après après soo si ko après après après dañ koy changé yokk ko quoi fii yaa ngi gis yaakaar ne tànk yi toog ba jeex waxuma la capp de nii ba mu jeex. bii moom xaaral nga bàyyi suba la pour que préparer. non tey nga koy dem tey tey. merci tey nga koy dem ñëwul. jogal ñànku xanaa bu baax dem yow ñànku ñu nekk sa ginnaaw dañoo bëri yimbal yëpp nekk sa ginnaaw. est-ce que yaa da ngaa war a liggéey. da ngaa war a liggéey waaye li ma jot a doon nii lii lii. baax na lan moo baax na ñàkk kese nga def ñàkk. mi ngi yeewu de waaw ah. mi ngi yow de loxo yi. bàyyi xool fi ma xam mi ngi yow de. Ah. Ah. yii daa nelaw ba mi ngi yow non mi ngi yow. maa dem nelaw rek. kii acca fi. te mboolem wax lay bëree mboolem lim yëpp. waaw. yow. say sans bët bi daal di say laajte. eh, eh daal defal ndànk. bii mooy suñu dernière chance. xam nga loolu. wax dëgg yàlla vraiment vraiment. yow yaay suñu daj dëpp yaay suñu yaakaar. soo xulee nag. Oh. bañ daan la. bu yowoo nag. ku ne taal sa ku jekk sa morom taal. Eh, boo tuddee six personnes nekk sama xol sama xol bëgg a génn. ah jërëjëf waaw escort. escort waaw waaw toog si tànk teg ko fii teg ko teg ko teg hmm? da nga na bul bul si bul ñëw teg ko fii fii fii waaw. Ah, waaw acca mbër. maa meen pël bi sàmm de. waaw sëñ Ba sama xel am. non non foofu de foofu de dix. def nii wàcc ba jeex jugaat. wàcce kontaan ba ñaata ko wax est-ce que waa 10 heures su oom yi xanaa daa am lu ci ne. am na ci ne sama diggante am na ci ne. lu tam soo laa lekk na. xaw ma ci dara. waa de tànk yi écart ëpp na waaye wàññi ko tuuti. voilà wàcc boobu loolu loolu los doole mu baax compter yow. un. des na de li may yàq yëpp un. waa yaa deful lu baax boo deful lu baax zéro lañ ngay compter deful lu baax. ñu def waaw tànn na rek. waaw tànn na. eh égal deux waaye te compter commencé deux ñu dem deux trois rek de day gaaw day gaaw tanana de quatre day wàcc bu suuf lamb si galaaj la ko teg de ah, Diop man li may dëjëm nga naa ay si galaaj nga ko teg de yéen de non ma dama mu tàng dama entraîneur. du laabu gaale ka lay saaga. yow bu ko toll. may ma de may ma yéen a ànd fii bu leen xeex. affaire la may ma tamit teg ma xam moom soo la xeexee nga yàq ma moom may teg ma. yow de baal ma xaar taxaw baal ma àq. baal ma àq baal ma àq baal teggi baal la baal la baal ko baal ko baal ko. teggi na baax xol bi dafa rafet xol bi dafa rafet trop moom bu la tooyee rek da lay baalu. baal la baal la ñu dem waaw ñu dem. demal baal la trois nga ma ko trois six six six la am. léegi dama lay yokkal benn am nga quatre damal quatre noppil bul wax y no cae nada. naaw xew-xew bu mag am fii signature de contrat Ndiaye production invité ñu fii fii si nationale bi diggante caatu ngéwal gi ak ñànko bu Faramareen ñoom ñaar tey jii ñoo war a daje fii nii si bis bi nga xam ne mooy dimanche ñu jox ñànko mu nuyoo bisimilah ñànko loo nuyoo. waaw ginnaaw bi ma sant yàlla ci ci yéen ci seen sama ñaar waajur may gërëm waa yëmbal yëpp di sant tund yëmbal Malika Kër Massar benn balaa Pikine ah di nuyu ñëpp ah di sant sama ñaay si sant sama sama wajur bu jigéen di ko ñaay yàlla di guddoo fanam may ko wér maa sama yaay man daal sama yaay rek laa bëgg di mel maa ma léegi si sama ma ma ma ma ma ma ma lu boo sama yaay rek laa bëgg di mel. maam lu kër xamul la yaa dégg sama yaay maam ñu bu nekkee xale ceeb bi ñu daan tooga may su waaj léegi ñu lekkatuñ ko ceeb bi neex amatuñ ko koy amuñ fayam te bëgg naa xaa yóbbu Màkka mhm. su ma ko jëlee Màkka yóbbu ko Angleterre yóbbu ko France. mais xam nga làmb ji lay may. xam naa ko bu baax. xam nga boo daanoo lu mu lay xañ. loolu laa xamul. xam nga lu mu lay xañ. non. waa njox jaabu caatu ngéwal mu nuyoo moom tamit bàyyi ko fii nga xam ne moo di Kewel TV. yee maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonente bi di gërëm suma ñaari waajur. di gërëm sama staff bi ma àndal ku si mel ni moom sa réew Père Xaali mais man nii ñi ma àndal waay sama gars yi ma àndal yaa ngi dégg mais ñaango xaaral mu nuyoo ba pare rek di nuyu moom sa réew di nuyu Père Xaali di nuyu Baye Dikam di nuyu baaba di nuyu Vincent xam nga di nuyu Layti di nuyu Modou Mbaye bu baax a baax a baax di nuyu Waayof bépp du jël nuyoo Waayof di ko teg si loxo xalifa général bi mu am Doudou Laye di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaanal Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na yàlla yokk ay leeram te tas si barkeem di nuyu njabootu Ahlou Bayti Rassoul gépp di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi fa nekkal Serigne Touba di nuyu Tidiane yi Xaadir yi Ñaseen yi di nuyu sama sëriñ Serigne Cheikh Fall ibnu Maam Saliou Fall borom ngaa ci maa ngi bu baax. waa Thiat la ma la si Ndiango. waa Ndiango li ma dugal si moom mooy lamb moo ñu boole. Mhm. ma dugg yëmbal am lu ma fa def loolu nag mooy li comité loolu mooy li comité léegi moom. mu taxaw ne moom mooy dëggal boppam pour bëreeg man. Mhm. te nag dafa am koo xamante ne man moom laa fa soxla ñu ne njànku mooy barrage am. mooy barrage am mais ñànku boo déggee caat ngeen wax dugg na yëmbal duggaat yëmbal duggaat yëmbal duggaat juróom benn maanaam bu doon mairie ba ma ne benn député moo ko fa dese. ñànku la wax ci lii. mais foog seen baale bi waay. la moo la xew. dal dafa gëj a dóol rek. mais kon looy waajal caat ngeen moom xam na bu baax ni ma koy waajee que daa dugg yëmbal lavaase ka. ok mën naa lim ñu mu daan. soxlawul lim. ah xam nga ñu daan ñëpp yow. xam naa xam naa daan na boo jëm un boo boo yëmbal. waaw Jaxal. Ah, Petit Baboy ak taat bay paate tas na yëmbal de. taj na yëmbal ah léegi man maa. ba ma maa ngi nii. ah man man booy man damaa yéene yàkkanti ma. mairie bi ña sa waay man kaaloo gaal maa man. ma ne laka du dem laka du dem. mais jaar la wax si yow. waaye kii xam nga sañta bañ la. kii sañta bañ la dey ñëw mo du ma ko daan ko. am nga yaakaar ne ñaango yow li nga daan six mbër yu mbër ñaango nekk barrage bi nga xam ne moo des benn porte bu nga jël mairie ba ñaango yi sax dina nangu loolu. noo du moom mooy du moom mooy barrage bi moom mooy du moom mooy barrage bi. du moom moom moom laa war a daan pour jël maire am na. waaw maire maanaam maire bi benn porte. moom bu ma ko daanee daa am keneen ku ma war a. est-ce des. waaw commissaire bi si des. commissaire bi nga soxla soxla woo commandant waaw daan commissaire bi laa soxla. ah de. Eh, saay saay ma man sa saako man ñee laay saako ñes wax sa booyee laay saako te da ngaa neex rek te da ngaa neex non non non dépassé laa la wax yow sëñ bi waa CNG waa CNG foo leen ne baax na nag amul laalante CNG da leen laalante islam man benn affaire maa ngi woo sa mbokk yëpp mhm. sa mbokk seeléeli mhm. yaa ngi dégg maa woo sama mbokk see waa ñoom jën waal maa ngi leen di woo mm-hmm. waa waa waa Baasul mm-hmm. yaa woo maa ngi woo waa ña waa Ñaajool mm-hmm. maa maa woo waa waa Buc waa Bañi waa Waalo woo Alpulaal yëpp yaa ngi dégg woo waa Njum waa Nanga Sama maa ngi leen woo woo sama mbokk yëpp yaa ngi dégg maa ngi koy woo ci combat mu jàppale Cheikh Omar am ah, ministre sama papa la Moussa Anne ah. Pamoul Fall maa leen woo ci combat ñu jàpp ci combat bi maa ngi woo Mansour Ndiaye. mais dégg nga yéen tegal terrain la terrain la waa waaw wax naa ko xaaral. ah, ah mooy waaw. waaw maa ngi woo yimba nu nekk fekk penc ak bu doon ah. yi bu leen tooñ bu leen tooñ waa yoof. jaxas affaire lu waaye mais bu leen tooñ waa yoof. gàcce teel a ko wax. mais li mu wax dëgg fecc penc ak ñaar yëpp la yoof. waaw moom xam nga man maa ngi woo sunu monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb. Mhm. di woo ministre Abdoulaye Diouf Sarr. di woo député Ami Top di kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk yoof di woo Tayrou Sarr bu baax a baax di ko wax ne ko combat bi bëgg naa mu jënd dix bolok xam nga li ma la di woo di woo ami topp di woo di woo maanaam di woo ñëpp diwoo woo Kéba Kanté aussi Baye Seydi maire maa ngi lay woo bu baax a baax a baax sama papa xaali nag man moom laa bëgg a mu yor ku wàllu gërëm bi. ndax waaw xaali léegi yow ñu bàyyi xaali comme euh, yaay papa. ma ne waaw ñun ndax bu ñuy jox waruñ ño jox ko deseb tey ndax kii ku ko xool xam ne suusul kii dafa deseb tey suusul yaa may dégg bàyyi dëkkam mii xam na li may wax beneen bi mooy ñi nga xamante ne ñu ngi jàppale ñoom ñooy waa nootoo boo jugee nooto nag da ngay dugg Daara Alpha dugg Bambilor boo jugee Bambilor waa den nañu ñëw yaa may dégg Bayax Ndaam Kër Mbir Njar toor waa Cago ak waa Ndombo ak waa Richard Toll ak waa Xuma waa Tagana ñëpp waa xolo tukulóor yëpp mi ma xam ma la faa leen foofu njum Aïda Lao Bokk Joy Wura Jéeri Wura Jàmme Wudur Wudur Alpha Guler Omar li xool yëpp ñu ngi leen wot ma ma maay woo ma maay woo ma ma maay woo ñambay ak jabaram Assu ma maay woo Fakra Diop doomu Dam Diop di woo waa Yëmba Gëpp yaa dégg maay woo Modou Mbène Diop ak Amadou Hott yaay woo maay woo Bala Gaye monsieur le maire maay woo maay woo Babacar Ndaw monsieur le maire Yëmba Nool di woo Yëmba tund Yëmba Gëpp benn balak Malika maay woo Talla Gadia Passe Ndiaye ñëw de Passe Ndiaye ñëw ino kayna yoon bayirim jaga oxena mota gore ñu leen jox rendez-vous le 10 arène nationale diggante Niankou ak Thiatou Nguéweul aya li ma eh. tegal bu gaaw yëngal say loxo ngay yëngal say loxo kon ma fee toog mu wax ne wax la trois heures nga bàyyi ba dëmm yi sëy ngay soog ñëw taxawal lii te tegal nga sa kër yi nga continuer ngay def wala ma ñibbi defal toog seen kër ba heure bu neex nga defe ne loolu daa daa nëmb te na ngay jéem a tëdd bëggatuma gi daje tax yow si mbedd yi te bëggatuma ñëw ñu ne ma dañu ne ñëw caa ci ñëwal place temps am nga combat rek leen nga conseiller ngay def. taxawal lii boo ko kiiwee nii boo kiiwee doo génne sa trois mille ah. demoon ay jëf. jàpp na. teel. teel nii. aywa na jóg waaw. ay jëf. teel teel bul bàyyi bul bàyyi. ay jëf dana teel ma ñëw. liggéey boo xamante ne amul finition liggéey day am finition. ay jëf. teel ko dem. déedéet teel fii. déedéet loolu fu mu am père. bàyyi ma woon soo laalee sa loxo yi. père yow yaa may entraîné ba pare di seetlu ay na jóg na jóg jógal ak moom. taxaw ma ko ah. taxaw lii. ba père. xam nga ne say entraînement bu jaaree ñoom. doo doo tal ndox xool xoolal nga def xoolal nga def say tànk ah ubbi say suuf teewaat si wala si suuf aw tar ngay wut wala doole ngay wut yow ah? aw tar ngay wut wala doole. doole laa wut. ana ni ana nga taxaw ay ca wan ma xool jëlal pusal ñëw xanaa pompe bi moom di nga ko mën ñëw boo naa ne toog boo ko naree dem kat ab jógal nga ne ko jógal tal wan naka ma maana man mbër boo ko meree noonu ngay def boo ko jékkawee ni bu rokos jógal naka ñëwaat waaye da ngay jékkoon mbër rek teg rek nga bàyyi bokkuma yi maa ngi jégg vraiment sa tuun gi fa rek booy booy jóg may téye nga fa aci ñu demal zéro ñu demal téye nga fa de téye nga ma di la xoolaat. péré woo oh. dama eh, eh. bul gestu bul gestu de. aywa bul xool seetu bi te bul gestu. trois de. quatre bul gestu de. cinq six xool ngay lox bul gestu de bul gestu. nii ma se fixé ñoom sa bopp métti na si man métti na si yow. père père nga yow nag père dóoroo père. kaay nii. am nañ pompe. waaw ay loxo day neex. dóoram lañu. xoolal ni nga taxawee nii. ani ma fos gaal. te nag may lekk yow. maa ngi maa ngi jégalu. jógal jógal. père sama yaram affaire yi messi li booy lan. sama yaram ay dugal sama yaram moo tàgg. père bul moo def nii père. moo def nii may dee. père boo ma dee bu ma dee yow loo may wax. non doo dee. père jógal may ma la père yow mënoo ma ne ancien mbër nga wax ma li nga def. waaw ay borom boo fekk entraînement ba pare di wax. Ah. te de sa ku ma sa ku ma sa gémma nga naan ancien mbër. père waroo maa jàngal lii waaye lu metti nga ma war a jàngal tamit père ay taxaw jógal jógal père boo defee nii man nan def juul nga nooy def xam nga nooy def